بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مبقى يدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبقى يمر نلول مبقى ينو خمني أمنا أجاخلي أمنا أجاخلي تندخ بو جوغي بابا تودو غي تودو يالا nga tudd yalla ci say baram ndax mo gën wala nga tudd yalla ci ak kurus lu ci gën ba am na benn groupe whatsapp sax boo xam ne sax xaw na faa indi li nga xam ni lu ma wax ab xuloo du ma wax werante waaye xaw na faa indi ay xam-xam yu feeñ yoo xam ni mbokk yaram ci doon wër dëkk fan la lekk ci ñaar yooyu insha allahu taala tey jii dina ñëw wax ci dara ndaxte nag mbirum diine la te mbirum diine moom dañuy dellu ca fan yi jële diine muy yonantu ba alayhi salaatu wassalaam mbokk jullit yi xam ngeen yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na képp ku julli ba bere wax subhanallah fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett nga tëjëg laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yàlla dalay jéggal say bàkkaar doon te toll na ni puritum géej waxee ko ci kurus ak waxee ko ci baaraam yi loxo lu gën mbokkam julit li gën lu jóge ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy nga waxe ko ak i baaraam nga limee ko ak sa baaraam yonentu ba sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam déglu bu baax yonentu bi moo wax ni tudd yooyu ngeen di tudd yàlla dee leen ko defee seen baaraam yi ndax baaraam yi yowmal qiyaam yàlla da leen di waxloo ñu leen di seedeel allahu akbar te ku nekk xam na ne mbokkam jullit kurus gi waxuma la dina dekkee ak yow waaye kenn du ko soolaale ak yow sax foofu ba léegi nag mbokkam jullit déggoo ma wax ni kurus dafa xaraam waaye dama li gën laa wax bu dee teg ñaari teg bi gën bi gën mooy booy tudd yàlla nga tuddee ko ak say baaraam di ko limeeg say baaraam yenn saa yi am ko ni bu fekkee ni may tudd yàlla daa bari ma bëgg ci am lim bu bari baaraam yi day tax ma fàtte allahu akbar nag fi ngay xamee nag yonantu bi alayhi salaatu wasalaam lan moo waral topp yonantu bi baax yonantu bi lim bi gën a bari bu mu joxe dal di koy cité dal di koy limité mooy téeméer kon saa boo naree tudd yàlla kon lu romb téeméer mbokkam julit jëratul konteeti moo tax foo dégg ko lan tuddal nangam wax ka lu mat ñaar téeméeri yoon lu mat ñetti téeméeri yoon lu mat junni yoon xamal ni loola moom xaw ma kan la waaye du njàngalem sunu yonante muhammad alayhi salatu wasalaam yonante bi lim bi gën a bëri bu mu joxe téeméer saa boo waree romb téeméer yonante bi da naan wala nga wax lu ëpp téeméer wala nga wax lu ëpp juróom-ñaar fukk wala nga wax lu ëpp waaye dina wutal ab lim ndax yonante alayhi salatu wasalaam xam ni saa boo fi nekkee romb téeméer bëgg wutal lim rek boo moytuwul benn nga jaxasoo walla wax ji nga koy wax dootoo ko mën a teelooti kon mbokk jullit yi li gën a wóor te gën a wér mooy topp yoonu yonantu ba sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam lu mu rafet rafet rafet ak ku la ko mën di jox nag bàyyil xel ni bu dee mag yonantu ba moo ci mag bu dee ci diine ji yonantu bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ni moom la yàlla waxoon ni ko jottali ma diine ji yon nañu yàlla sàmm ba kiraam ñu dajeeg moom اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد